Assalamu alaikum, mbokki internet C'est le deuxième numéro Actu Santé ñewat na ci beneen thème sensible muy accident vasculaire cérébral ñu gën ko xam ci AVC. pour gëna am luñ ci leer dem nañ talo suñu micro docteur Mbaye Paye cardiologue médecin urgentiste ñu baylé ngeen déglu ko. maladie cardiovasculaire bu ñu koy wax mooy feebar yi nga xam ne euh, dafay laal xol yi xol bi ak euh, siddit yi nga xam ne mooy mooy mooy génn ci xol bi te di dem si si si si yaram bi yépp donc euh, bi ci njëkk mooy li ñuy wax les maladies coronariennes mooy feebar yi nga xam ne day laal siddit yi nga xam ne mooy jox xol bi deret ñu ngi koy wax ci tubaab les artères coronaires ñaar la bu droite ak bu gauche donc artère coronée bi si càmmoñ bi artère c'est bi si ndeyjoor bi donc ñaari arté yooyu souvent fay day boucher day fat par euh, euh, dépôt de graisse moy cholestérol wala ben caillot de sang mu def liñu wowe crise cardiaque moy liñu wax euh, crise cardiaque infarctus du myocarde wala angine de poitrine benen bi moy bi laal siditi nek si yor bi ñëpp xam nañ ko si communément AVC accident vasculaire cérébral bobu tamit lu bari la fay indi ay handicap sax ay côté bi paralysé wala gémmañ gi paralysé té bobu aussi euh bari na ci dëkk bi euh amna yo xamné ne li ñuy wax ischémique la moy sidit bi ci bop bi da fay da fay bouché par comme li ma wax les cholestérol manam graisse yi loolu téeméer boo jël euh, juróom-ñetti fukk yi AVC ischémique la heureusement benen bi AVC hémorragique moy sidit bi ci bop bi da fay saigner day nàcc bobu heureusement téeméer bo jël ñaar fukk yi mom la bu ñu paree si AVC ñu dem si art sidit yi nga xam ne moo nekk si tànk yi moom la ñuy wax artériopathie oblitérante des membres inférieurs mooy tànk yi euh, benn sidit bi si tànk bi benn bi dafay bouché souvent même chose nit ki buy dox du mën dox euh, mole yi dafa mole bi dafay metti maladie cardiovasculaire aussi am na yoo xam ne euh, dafay laal li ñuy wax li ñuy wax cœur bi nga xam ne muscle cardiaque bi cœur bi nga xam ne moom mooy moom moom mooy fudd pour sànni deret bi ak valve yi mooy yi nga xam ne mooy tax deret bi dugg si xol bi di génn ci xol bi day ubbeeku di tëju donc yooyu aussi li loolu moom si xale yi lay gën a dal mooy yi ñu wax euh, rhumatisme articulaire aigu mooy angine xale yoo xam ne dañoo amoon ay angine bi ñu nekkee xale angine yooyu fajuñu ko surtout angine à streptoco bêta hémolytique groupe A noonu lañ ko mën a waxee boobu day jàpp xol bi valve yi muscle bi ak ak ak articulation yi articulation di metti boobu souvent si xale yi lay lay gën a dal mais am na aussi li ñuy wax les cardiopathies congénitales mooy xale yi nga xam ne dañuy judd ak ay malformation bari na fi aussi boo demee fan ci service su chirurgie cardiaque wala Dantec yenn service CTO da nga gis ne am na xale yu bari dañuy juddu ba 2 ans 3 ans am ay malformation te ñooñu aussi dañ leen war a opérer beneen bi mujj nag maladie cardiovasculaire mooy boobu sax maladie bi bi laal dootul laal siddit mais veine yi lay laal veine yi mooy yi nga xam ne deret bi bu demee moom moo koy yéegal mu dem ci xol bi donc seet nañ ni veine yooyu ci tànk yi la dafay bouché mooy thrombophlébite su bouché ben caillot de sang mën na fa jóge yek ñëw si xol bi wala ñëw si poumon bi mu jox la embolie pulmonaire yoy dal moy xétu fièvre yi nga xamné moy mooy li ñuy woowee les maladies cardiovasculaires mais bi ci gëna euh, bari dal bi ñi gëna euh, sétlu fi moy mooy li wax les AVC mooy japp yóor bi accident vasculaire cérébral wala crise cardiaque moy infarctus du du myocarde. seeti nañ Bor gay ki nga xamni febar bi dal na depuis 2005 mi ngi koy soxale jabaram aji mom tamit témoigné na ñu bàyyi ngeen seetaan ko Je venais d'Abidjan. Arrivé sur la route, juste vers la frontière du Sénégal, là, euh, ça on est descendu et tout le monde, on parlait comme ça. D'un seul coup, c'est parti comme ça. Je suis tombé. On essayait de faire quelque chose, mais c'est pas possible. On m'a pris de là-bas pour amener dans une clinique on arrive, les gars, on fait tout. Il dit, vraiment, on peut, ne peut pas faire quelque chose. On continue. C'est vers euh, Tamba. On m'a mis dans, un truc, à l'hôpital. Je suis resté là-bas cinq, combien trois jours rien. les gars ont dit, on va essayer de partir euh, sur Dakar. Et puis, comme ça, peut-être que si on va à Dakar, on va trouver une solution. voilà donc euh, pour AVC donc euh, des artères donc si souvent mooy bouché Voilà, moy jox accident vasculaire cérébral ischémique wala hémorragie donc là, moy tax mu bouché wala mu donc euh, souvent liñ wax la voilà exemple donc qui, c'est normal mais gis nga jaune plaque d'athérome jaune euh, dépôt de graisse la buy déposé wu si te su gën gënee mag plus graisse bi gën a mag plus deret bi du mën a jaar fii donc bu fekkee ne donc si bopp bi la dafay indi AVC indi AVC maintenant su nit ki euh, continuer di lekk lu niin du def entrement muy tux wala mu am jabet plaque bi bu jaune bi dafay gën a yokku day gën a yokku def nii donc day recruter ay yeneen élément gën a yokku ba léegi deret bi dootu mën aw fii des si yóot bi dafay indi accident vasculaire cérébral ischémique ba tey maintenant Bok aussi plaque bi dafay dafay dafay dafay dafay xar deret bi dugg mu def de sang donc loolu indi AVC ischémique bu fekk lii si xol bi la mais bu si bi indi indi AVC bon lii mooy plaque bi bu si xol la plaque si si xol bi dem si bi AVC ischémique si bi dem ak li bu si la AVC comme rek li normalement le jaune lit, moy plaque d'athérome plus ngay lek lu niin di tux wala nga am jabet wala do do la seram da fay gëna fat donc deret bi dotul man aw fi donc li souvent fay de fay indi accident vasculaire cérébral ah tok rek di téléphone 8 h ba 10 h wax ak normal entre midi une heure deux heures mu woote ñu woote ne sa jëkkër dafa feebar paas ma ko ma wax ak moom ñu ne mënul wax nii la amee du am du nekkul feebar boo xamante ne da ngay toog ne man tey lii war na ma dal wala ma am lu may sentir wala dara mun na ñëw brusque léegi tracé la dootoo xamante foo nekk yóbbu la yenn étape yi hôpital Fann la hospitalisé woon ñu def ci seen kentulaay kàttan soins yi ordinance sur ordinance man xam naa si dara lépp man sama loxo bii la jaar scanner sur scanner am benn boo xamante ne day am xaar ndëga na ko déedéet ordonnance ordinance ordonnance parce que buñ defulee noonu doon woon baax moom day tëdd xamul fu mu nekk yow jabar yaay gérer lépp yaay yéeg yaay wàcc yaay def képp ko mën a ñëw tamit mënul taxaw mukk place su jabar. seeti nañ Omar Seck moom mi nga xam ne papaam feebar bi daloon na ko ba mu far si ñàkk si bakkanam ñu bàyyi leen ngeen seetaan témoignage am. feebaru AVC dafa nekk feebar boo xam ne bii feebar bu doy war la parce que man dafa mel ne gars yi mënagu trouvé gu ñu faj bi daal parce que sama papa. par pour man bu njëkk ku ma AVC ku ma daan dal da ngay da ngay am yaram wala kii mais paa bi dafa amul yaram mais bu ma ko doon dikkee ci tuwaare la ko fekk bon xam naa li ko gën a sonal nag mooy nit ñi xaw nañ koy yéex a yëg def na fa presque trente minutes après bi mu góorgóorloo ba génn la daal di daanu ci buntu buntu toilette bi ci la ñu ko récupéré ci la nde wetu ndeyjoor bi bañ ko bi ñuy defee rajo def analyse def affaire yëpp gis ñu dara ci moom. fekk ben, même même même gémmiñ gi dafa dem fa moy quoi parce que affaire bi lay diké quoi loxon loxo jor bi ak tanki tànk jor bi yépp likoy koy andi nak moy nag ñi am hypertension artérielle bo xamné xam nañ ko ñom dépisté nañ ko ba paré man hypertension bi dépisté nañ ko jox leen ay garab ne leen nañ def ay mesures hygiéno xam nga par exemple bu la joxé garab. danga koy jël à vie garab bi sa giru dund la door ko bàyyi sauf bu la ko docteur bi waxé wala infirmier wala sage-femme bi Bolisi, si ngay def ay mesures hygiéno-diététiques xam naa dinañ ci prévention bi moy wañu xorom wañu sucre wañu lu niin di def activité physique bàyyi tux moytu stress bi euh, maintenant waxna lay téeméer bo jël juroom ñett fukki AVC ischémique le bobu sax grawul noonu mën na ko récupérer bobu cholestérol lu lu graisse moy lalu si sidit bi ci bop bi bu fekk ni côté bi la deret bi lalu côté bi moy paralysé bu fekkee ne côté bi la lalu côté bi moy paralysé loolu li xamé moy ki par exemple day jekki di wax mënul wax wax bi bañ wala sont gi moy mu jekki qui bi aussi ko day faible wala tank, bi ko li wax paralysie d'un côté wala mu jekki amna sax lu ñu woy accident ischémique transitoire sont sax la ñu lan nit ki nga dafa wax dafa wax par exemple bëgg a sont bi jogul wala mu mu bëgg cinq minutes après mu retrouver la parole moi mu commence waat wax loolu mooy accident ischémique transitoire loolu def diagnostic bi fofu mo gëna mo mo mo mo gëna bax mo gëna bax parce que AVC bi nga xamné amna ba paré bobu même malade bi xam na ko moo lay wax né dama am AVC mais bi mom moy accident ischémique transitoire nit ki da fay mëna wax mënul wax wala ben bët bi euh, gisatul mu jekki dans la minute qui suit mu gis c'est un signe annonciateur d'un futur AVC donc faut la ñu commencer des prévention donc loolu dans en gros mooy AVC donc wax mouno, wax sa côté paralysie tànk bañ wala nga qui faible di miir ainsi de suite loolu mooy accident mais bis au mooy accident ischémique maintenant bu a un accident hémorragique téeméer boo de ñaar fukki bo, souvent dans le coma ngay dans le coma ngay je ne ressentais rien c'est moi qui ai pris la voiture d'Abidjan jusqu'à la frontière du Sénégal.

te nga xamante ne bu xew nekkoon ne keneen si jàmbur si mbedd ma moom la dal di ko soulager waxantuma laa koo xamante ne sa mbokk la nga nekk ak moom. prévenir euh, accident vasculaire cérébral waxoon naa léegi ne li si ëpp moo koy indi. donc comme tension moo indi il faut combattre hypertension artérielle D'abord, mesure hygiène mooy moy nak lañu wara dundé dundee bi lañu ñu wàññi bi lañu ñu euh, pas totalement par exemple ñu ne euh, patient bi agnsi si nga ndekk ci agnsi mais bul serré parce que mënoo ko bàyyi complètement su ko défé bo défé loolu di nga gis ne xorom bi ñi lek par jour dina wàññeeku parce que ñu dépasser 6 grammes de NaCl par jour waruñu ko dépasser

wala nga def ay substituts nicotiniques mu bàyyi cigare nga jox ko ay substituts nicotiniques maintenant la loi aussi amna a ay waxna la ko ay décret d'application la loi anti tabac décret application buñ ko appliquer di nga gis né soit ñu yok cigarette bi euh, moytu wàññi wax nit ñi aussi ñu bañ di tux fu nek espace public ñu limiter en tout cas la consommation de de de tabac parce que tabac facteur de risque cardiovasculaire lutte contre le stress bien sûr contrôler le stress par des moyens, respiration, relaxation, yoga et, l'activité physique et sportive. En tout cas, alimentation équilibrée. Alimentation équilibrée entre les fruits et légumes. Ah, activité physique. L'activité physique, c'est capital. C'est capital au moins 30, minutes, ba, euh, minutes par jour. soo mënul par jour nga def un waxtu de waxtu ñaari fan yu ba tey soo mënul mën nga am appareil wala ngay def ay séances de musculation c'est très possible soo ko mënul par exemple jour bi nga def 10 minutes matin 20 minutes le soir pour que a mondiale au moins mondiale la santé wax am fanweeri minutes activité physique par jour mais heureusement les seetlu nañu ne nit ñaa commencé di jël conscience si si si si si loolu étude bi ñu defoon Saint-Louis dafa prouvé woon ne téeméer boo jël euh, jël Durant fuk ak benn yi duñu def activité physique et sportive té loolu ñëpp sét nañu vraiment c'est capital pour réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires euh, donc activité physique des wañi poids day équilibrer tension à diabète des wañi cholestérol day dindi yaram bu bari et puis dafay dafay dafay dindi stress loolu lépp combiné day tax xol bi day gën a day gën a daw bon séance de musculation aussi baax pourquoi parce que boo amee yaram graisse bi dafa wara a après nga jël muscle pour ce poids mën a stable def sport au départ, départ dañuy sen poids day mais 15 jours après da nga gis poids parce que dañuy muscle bi dafay remplacer graisse bi donc day tax souvent aussi mu mu mu améliorer ça c'est important aussi manger 5 fruits 5 portions de fruits et légumes par jour ou plus ou plus au moins 5 parce que dañu ne un lekkee 5 di nga am. Euh, fruits et légumes portion bu 150 grammes de nutriments Voici si 5 réparti ko si ndékki Les portions fruits et légumes de portion de fruits et légumes par jour c'est différent par jour ou plus di 700 ba 800 grammes de micronutriments yo xamné fruits et légumes rek la lutter contre les maladies cardiovasculaires mo permettent permettre lutter contre le vieillissement donc moo tax ñuy wax nit ñi fruits et légumes enquête step de l'OMS bi bi effectivement majorité bu bari plus de 60 pour du fruits et légumes par jour et pourtant parfois c'est abordable c'est pas cher mais nit ñi xamuñu ko dafa am ay ay ay micronutriments yu luttent contre ay ay antioxydants lañ koy wax yu contre les radicaux libres ñun ñëpp am nañu ay radicaux libres mooy suñu yaram am nañu ay les fruits et légumes boo koy lekk de manière régulière daf koy dindi lutte lutter contre les maladies cardiovasculaires, donc lutter bien sûr après contre le vieillissement et même contre les cancers. On a étude yu wane beaucoup de fruits et légumes des wàññi l'instance des cancers a cancer du col de l'utérus cancer du sein chez la femme. la règle qu'il faut c'est ça 0 30 0 tabac 5 portions de fruits et légumes par jour et 30 minutes de marche par jour Les appliqué nous éradiquer complètement les maladies cardiovasculaires mais dina les maladies cardiovasculaires parce que l'organisation mondiale de la santé le plan établi 2013 2020 d'ici 2025 nous allons réduire les maladies cardiovasculaires de manière significative plus de 25 de réduction des maladies cardiovasculaires par euh, hypertension artérielle diabète obésité tabac euh, cigarette activité physique de manière euh, euh, des stratégies, en tout cas des mesures au niveau mondial, mais également au niveau, au niveau individuel. Nous ñu nous les rek parce que fièvre, bi fe na comme les dëkkatul fenn du ku am yaram wala ku ki def surtout li ñuy surtout tey yëngal Nous yaram. ñu un message nous devons seen yaram di de seen surtout sa man de man bu fi may waxee moom mi depuis ma gis feebar bi dal ko yu bëri moytu naa ko. mbokk yeeg xarit yi li lañ leen indiloon ci seeni émission ak ci santé ñu jox leen dig daje ba baneen yoon ci yeneen numéro ak yeneen thème à